di si jiital fai daara ji di si teg mboolem waa daara ji yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di rafetlu jataay bi bu baax a baax a baax tey nag bu sunu jataay bi fii ñu xam ne daara ji am na benn programme bu mag bu nga xamante ni moo nekk ci kanamam ñu koy séentu muy siyaar bi nga xamante ni ñu ngi ko war a siyaare xalifa général muy sëriñ taxa te nekk sunu yite nekk bi tey mbooleem waa daara jépp nag tey loolu moo taxoon waraloon sunu palaato bi ñu fa yéene see ànd ak mbokki taalibe yi di wax ne siyaar bi nag dafa nekk loo xamante ni lu nu war a jox yite la te lu nu farlu la ba tax ne si tembobo boobu si lan war a di si dalal sunu jaurin di borom xam-xam bu mag di bu xam-xam bu sell tamit muy Seydina Omar Sen. mbar ñoo dikkal leeralal ñu yite ak siyaar ba tamit jël si ay référence yoo xamante képp koo xamante ni rek dangaa nekk ci daara ji te tamit yoonu murit ñor la rek war nga kaa bàyyi xel muy référence yi nga xamante ni da ngay jël ci saxaaba yi ak di ko jël ci mag ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak Serigne Touba ñu xamante ni boo xoolee boo jëlee ci saxaaba yi nga gis nga ni ñu am woon yitte ci diine ba tax diine tasaaroo ba àgg fi ñu àgg nga jël ci mag ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak Serigne Touba ni nu fonke woon yoonu murit fonk Serigne bi ba tax tey na yoonu murit mel ni mu mel kon lolo buñ koy waxtaanee war nañ see bàyyi xel bu baax baax te teewlu ko bu baax a baax a baax ndax ab jataaykat boo fi ñëwee ñu fay waxtaan rawatina nag li jëm si yoonu murit jëm si siyaar bi kon war nga ka tewlu bu baax ba bo ñibé képp ko xamanteni ni na ngant te ñewutone si si jotaay bi kon bu la wax waxoon ne tey lan la doon waxtaane kon war nga ka mëna teunkal tënkal li fi doon waxtaane lol nak likoy koy maye mooy bu nuy waxtaan nga tewlu waxtaan bu baaxa baaxa ba te ko bu baax xamna dañuy baña guddal rek ndax waxtu wi dafa xat su ko defee dañuy ànd ak Seydina Omar mu faran fàcceer ñu waxtaan wi ñu teewlu ko bu baax auzu billahi min asheytaani arrajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المحبوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بك جلدي mbokki taalibe yi ginnaaw sant yàlla azza wa jalla ñu ngi julli di sëlmal ci xayrul mursalina sallallahu alayhi wa sallam di sant di gërëm di tatagal maulana cheikh ahmadou bamba di leen nuyu nuyoo jullit jëm ci mbokki jullit di leen nuyu nuyoo taalibe jëm ci mbokki taalibe di am mbégte di am kontante ci jataay bi jataayu zikru muy fàttaliku yàlla azza wa jalla jataay yëpp tajdiit lil aqaid yeesal pas-pas yi waaye jataay yëpp taakiit li niyaat maanaam fedd li yéene yi nga xam ne moom lañ am ci suñ diggante ak suñ borom suñ diggante ak Cheikh Ahmadou Bamba waaye daje ngir feeñal ak jàqi cofeel ci xolu taalibe yi ci Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag soññante ci suñu biir ci bis bu màgg ci lislaam di jëf ju màgg ci diine di jëf ju màgg ci yoon wi di yoonu murit waaye jëf ju màgg di bis bu am euh, wàccuwaay ci daara ji mu di ziar bi nga xam ne at mu jot daara ji dina takk jóge ci Ndakaaru bokk taalibe yi ànd ak ñi nekk ci yeneen gox yi daje foofa ziar ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu kon dajé di dajé bu am solo la dajé bu dajale ay ngeneel yu bari bari bari la ndax suñu borom nee faskuruni askurukum waskuru li wala takfurun de len ma fatlikou di Dajalo di waxtane dina ji waxtane gayu bax yi nee suñu ko defé man tam ma fatlikou len waskuroo li wala takfuruni ta ngeen ni sant sama xewali bu ngeen koy def e, man tam ma leen dolli rek di leen dolli rek di leen dolli waye nak bu leen weddi bu leen bok ci ñinga xamne ya'rifuna ne yaarifuuna nicmatallahi summa yunkurunaha ñi xam dañoo xam xewlu yalla waye santuñu ko ñu weddi ko kon dajalo ngir fatandiku sa borom lolu bokk na ci li ab julit di def ta muy lu magga ñaareel bi mooy yonent bi alayhi salaam nee na maa jalasa xawmun majlisan yaskuruna allaha azza wa jalla illaa wa xaffat bihim almalaayika wa xasiyathum arrahma wa sakarahum allahu fi man indahu yonent bi yàlla yónni ci nun nee waxtu boo xamee ne julit ñi dajaloo nan di fàttaliku yàlla azza wa jalla suñ borom dina bég ci loolu baleni leen fatliku fàttaliku tam ci hadra ba mook malaayika yi su boba bekte mom suñ borom bek dina egg ci mu yoni ay malaika na len dem len bu ngeen demee ngeen yir mbala ni yermande wa jotaay boba ta di len faral seeni bakar di len sakul ak texe mo waral yoonte bi xeron lol ci jotaay yi nga xamne ne dañ ciy tudd yàlla di ko danna wax ne isa marartum biriyaadil jannati fartahu bu ngeen te di dox ba ak e, jataay aljana yi ba rombu deuri aljana yi na ngeen fa jaar dalu fa waye nan ci sewnde yi waye wattu ci meññet ba ñu laaj ko yow ki yalla yoni ana lan moy tolu deuri aljana mu hilahu zikri jataay yi nga xamne ne ñi dañ fa dajalo di tuddu yalla azza wa jalla niki nonu pas-pas xam ngeen ne ab julit warna di yeesal pas-pasam fum tollu ndax pas-pas moy l'islam l'islam leppam haqida la pas-pas ndax Islam mënta wir, ta haqida amut muy pas-pas te itam jëf mënta yewen ta pas-pas amut faw haqida am nit ki limuy la tax muy jëf loolee la suñ boroom di xool kon dajaloo ngir yàq itte yi yeesal pas-pas yi lu ama am solo la yonent bi alayhi salaam wasalaam sidna Umar nee na dégg naa ko mu ne innama al amalu binniyaati wa innama kulli imri in ma nawaa nee na na ngeen xam ne mboolem jëf yi mu ngi takku ci yéene rek yéene rek mooy tax jëf sell mooy tax jëf màgg mooy tax jëf suñu boroom nangu ko nee na kenn ku nekk sa yéene ngay am fa man kaana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi képp koo xam ne dafa gàddaay jëm ci boromam akub yonentam nee na kooku day euh, suñ borom dina koo gàttandu defal ko ngërëm defal ko tawfeex képp koo xam ne nag da ngaa gàddaay ngir àdduna da ngaa ngir àdduna la la tax a jóg rek loole mooy sax fay ki noonu ñu dajaloo ngir yeesal pas-pas yi ci jëmm ji nga xam ne moom lañ suñu borom booleel muy suñu yaakaar tey ëllëg pas-pas amee solo noonu la yéenee amee solo waaye noonu la cofeel amee solo yonente bi sallallahu alayhi daan na wax ne fa wallasi si bi yadihi laa yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min waladihi di walidihi kenn ci yéen du deug deug gëm fek man yalla yoni yónni gënaluma ko ay domam gënal ko ay wajurum ahlu tasawuf nak fam lañu jële cofeel nga xam kon ak cofeel moy bu ngi yew diggante sëriñ bi ak talib bi nu sëriñ bi gën a soppe nu sering bi gën a soppe sëriñ bi sëriñ bi gën ko sering a xettali bi gën ko jëriñ waral sëriñ bi bolé ci sarti murid ay as-sidqu fii mahabbati cheikh abat dëggu dëgg dëgg ci bëgg sëriñ bi dëgg dëgg dëgg dëgg bëgg googu sidna Abubakar Siddiq ci la roye woon bëgg yonent bi ba yamalewu ko ak kenn yamalewu ko ak lenn waaye gëm ko ngëm goo xam ne yamalewu ko ak kenn loolu moo tax Abubakar Siddiq bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàllee ci saxaaba yi moom la ñuy tudd ndax cofeel goo xam ne soppoon na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waral ahlu tasawuf fonk lool cofeel ci digënté sëriñ bi ak talibé bi kon talibé yi war nañ jamono bu nek di dajalo di def lu yéssal sen pass pass di def luy yàqi sen tiofel ci Cheikh Ahmadou Bamba lolou mo waral mag ñi andono ak sëriñ bi rawon sëriñ bi sanni leen fo xam dina jafé lol am jaam yegg fa bëgg suñ touba bëggalam ci ci mbëggeel gi bëgg ko ci mel ni Cheikh Ibrahima Fall bëgg bëggoon sëriñ bi egg na ci bu daan wax ak moom day tëx lu du dégg du gis day bàyyi ba sëriñ bi yeggale ba mu ba nga xam ne maanaam euh, mandite gi ngërëmaande la na ci moom ci cofeel gi mu suñ sopp sëñ Tuubaa giif na muy laaj sëñ yaaram mbay aa yaaram yaaram bi lu mu wax cofeel googu ci ko suñ cubaa sànnee foo xam ne dina jafe lool ngir yegg fa kon li tax ñu dajé lepp ben bu ci nek jaroon na dajé ziar itam lu am way la ci diiné lu am way la ci l'islam sufi yone mana yi nenañ ziyara masru la manam dañ ko yonal ci diiné masru la ndax fiñ wu fiñ sukkandiku moy suñ borom dafa wax ne walau annahum izlamu anfusuhum jauk, ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullah tawaban rahiman yeen julit ni bu fekkee ne tooñ ngeen sen borom def ngeen bakar ngeen daw ñew ci yonent bi alayhi len, ngeen jéggulu yonent bi len suñ borom len kon day wone ne kon jambi, bi suñ borom am kum ko moo gën a yomb ci suñ borom rus ko moo waral boo demee ci waaju baax siyaare ji ko jëmmanteeg moom loolu mu xool la bëtt yërmande xool la bëti ñeewantu suñ borom mën na jaar ci ñeewantu kooku ba ñeewantu la loolu moo waral ahlu tasawuf fonkoon ziar ziar nag am na siyaaru tëggu am siyaaru tëggu am siyaaru yeesu siyaar nguru tëggu manam teug sa pas-pas teugat ko yeesal sa pas-pas waye duy sa xol ba mu fess ak leer ndax waxtu woo janoo ak nitu yalla ba mu xol la bëtam yi nga xamne ne ngeureumal yalla la da dafay def jeexit ci sa ruh def jeexit sa xol bo fa joge lol dalay top dir bu yag ma waral sufi yoonu yi buñ dan jaamu yalla ba melni lu yokkat am borom ben gor yalla buñuy wax Mouhamadul Maasi dañuy dem ziyaare ji ko nga xam ne bu demee ba ñu ko na ko jàkk mënu leen jàkk dañuy yeesaat dañuy nekkaat ci maanaam ak cawarte nekkaat ci étape boo xam ne ak forme boo xam ne day jéggi dayo lool loolu waral ahlu tasawuf fonkoon ziyaare ji sëriñ bi nag moom ku amoon yéene la ci ziyara ji yaronte bi alayhi amun wasalaam amoon na ci aji umra waye ziyara ji madinatu munawwara ba jambar na lu bari lol ci mbindam lu mel non lay waajoon lako yit ba wo suñ bakki musu wax ko ne ko noy and man ak yow dem mukarram waye suñ borom dik ak ciobarem mu dugg ci loxo tubab bi ba ni fi bàyyi ko amul benn yoon diggante boo xam ne mën naa eggale yéen a jooju waaye ak Cheikh Mahamadul Fadal moko matuli ak Cheikh Anta ak Sëñ Mbàkke Buso ak ñi àndaloon muy jëm mi ziar bo mu doon ziar Isa alayhi wasallam aji ji makkah al mukarram yonent bi nak ziar ji ko lu reuy la neena man zaara khabri bahda mamati kaman sarani fi hayati ki yàlla yoni neena kuma ku ci sama dundu ci sama sama faatu siyaare sama xabul nee na mel nga ni ku ma siyaare bi ma fi nekkee kon loolu day wane ne kon wala taxsabanna allazina qutiloo fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim góor yàlla yi duñ fi bàyyi ko duñ fi jóge dee gii ñu xam nit ñi di ko dee ak seen gos bokkul donte jóge nañ fi waaye ñu ngi fi Abdul Wahab Sahrani nee na awliyaullahi taala yi doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg boo siyaara ji seen bàmmeel ñoom seen ruu day bàggante barsaq ak bàmmeel bi day bàggante rek waxtu woo xam ne ñëw nañ ci bàmmeel bi ci rawdatu bi kuñ fekk ngay siyaare seen rawdatu boobu suñ borom dafa laaj texe dafa lu jéggal kon góor yàlla ziyaara ji leen lépp taw feex la rawatina nag koy dund ci kaw suuf nag seenu dund ak seenu jóge fi ñoo yam rek dañu wax ne wàllu yiw kaamil fukki bët la yor benn bët lay xool ak jamono suy bàyyi ko fukki bët yëpp ay xool moo tax awliyaaw yi fa ñu nekk lañ gën a janoo ak nun fan nekk lañ gën a mane lañ mënoon ci tërbiya ak tarxiya sëriñ bi nag xame moon na lool dem ziyaara ji yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba demee ci xasida googu mu tuddee xat aaxanil yawma xubbul ahli wal watani mu ngi wax ne wa maa liya laana xaajaatun uammiluha siwa taxallusi mimma yastaki atani man li bi rawdi xarunin kay yuxaada ila baytin huwa albaytu inda al ilahi mun munsubuni nee na Euh, jamono yi nga xamé né 1311 ci ati gaday gi laata muy dem ci geej gi digënté bimu mu Touba digënté bobu néna o mo won itte judul am ak yëwén summeeku maanaam tekkeeku ci lima galankor li sama xol bi jambat bama mëna dem ziyara ji néegu suñu borom subhanahu wa taala baytun huwal baytu inda ilahi inda ilahi mun su ba nga moo di am fa yàlla diirub ni ko tabaxee waaw nee na ooma itti ju ëpp suñ borom subhanahu wa taala defal ma ba ma woyof ba mën a dem ziyaara ji baytullahi alxaram daal di melal néeg boobu ne baytun daani rabbi wal xalilu maan ila siyaaratihi xidman min alzamani julli bi zaadin xalaalin tayibin maliki hatta urafixa ma yaatuhu fi sufni daal ne néeg la boo xam ne muy kaaba gi nee na daa ni rabbi wal xaliilu sëriñ bi nee na suñ borom moo ma woo ne ma ñëwal siyaare si néeg bi wal xaliilu ak ibrahima xalilullahi ñoom ñoo ma woo ne ma mu ñëw siyaare si néeg boobu di baytullahi alxaram nee na loolu bu njëkk bu njëkk xidaman min az-zamani lu yàgg ci jamono suñ borom subhanahu wa taala jox ma digal loolu moo tax mu waajoon na suñ borom julli bi saadin may ma am yëbbal xalaalin yëbbal bu teey bu dagan xatta ura fi xam maa yaatuhum fii zufuni ba ma mën a ànd ñi nga xam ne dem di aji màkka ci looca yi di waaj ci xelam ci xolam ci ruuxam wax suñ borom ne ko julli bi sihati jismin wasrifan himami ila siaratihi bir ruuxi wal badani suñ borom maa ngi lay ñaan nga may ma wér yaram te nga wàññi sama itte jëme ko ci siyaara ji ci yaram ak ruux bi ruuxi wal wal badani suñ may ma wér yaram goo xam dinaa mën a jóg siyaara ji ci yaram ak nga xam ne ni mu bëggee woon Makka bëggee ko Madina li ko waral mooy bëgg gi mu bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam Màkka la jamono moo tax mu bëggoon dëkk bi lool moom Sëñ Tuubaa waaye nag Madina fa la islaam sampoo tey fa la soonu di dallu moo tax ñaari dëkk yooyu mu fonkoon leen lool wax ne walil madinati saati nuuru mun su xadat daaral xuda wa tuqaa wal fardi wa sunani nee na tilkal madinatu laa xasrun tubaarisuha bal innaha siinatul amsaari wal muduni nee na madina dëkk la boo xam ne dëkk la boo xam ne dëkk bu leer nañ Madinatu Munawwara dëkk bu leer nañ ya ngokk diirub suñ boroom sàkke ko diirub mu doonee daaral huda kërug njub wa tuqaa ak ragal yàlla wal far fardi ak farata wa sunani ak sunan nee na tilkal madina dëkk boobu laa xasrun yu baari suha nee na amul lenn njën dëkk benn bu mën a buy lawaatoo ak madinatu munawara ci tedd nga ndax lan sallallahu alayhi wa sallam tey fa la fa la sóonu bal sin bal innaha siimatul amsaar wal maduni madina mooy taarub jamono mooy taarub jamono ki yàlla yónni fa la sóonu leeram ga di jolli rek di jolli rek fu mu toll ba léegi bu demee ci raayatu mu ngi wax ne xafaaru lixfir sunubi waf ku kan kabali bi man alla yedi tarki zawrahu aaru ñak bi nga xam ne ñàkkoon na ko am ak jappandi ngir dem makka egg na ci mu jàppe ko bakkar ba koy tuub tuubal suñu borom suñu borom jéggal ma sama bakkar te nga dajj sama jéng manam lima galankor lima baré ba mënuma dem dindil mako waf ko kan kabali di mën ala yéri tarki sawruhu aaru ci barki ki nga xamne ñak ko siyaré ji gàccere ci man mu yoonte bi alayhi gi dem ci mu euh, na madinatu munawwara tiim rawdatu muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na loolu gàcce la ci moom da ko def gàcce nee di man xaati yuxaatibu nii fi sawri rawdatihi baytaani xaw xawli man bil urfi ammaaru nee na ci barki bi bi maa ngi lay ñaan nga daj sama jéng yi te jégal ma sama bàkkaar ci barkib yonent bi nga xam ne am na ñaari bayit yoo xam ne dafa taxaw mel ni jëm di ma soññi bis bu nekk bayit yooyu sëñ mu jagu paa moo way nee bayit yi day ci sama xel rek ak sama xol di ma rek lu may wax sur man tuhibbu wa in sattat bika daaru wa xaala min dunihi sahlun wa wa aaru la yamna annaka buhdun an siyaratihi inna al muhibba liman yahwahu sawaaru nee ñaari bayit yi ñoo taxaw sama kanam dima rek sur man tuhibbu sur man tuhibbu siyaara jël ka nga bëgg ab soppe day siyaare ji ka mu sopp donte dafa dëkk fu sori yoon wi am ay montagne am ay xur am ay ndog mbent am ak jafe-jafe teewut war naa bëtt xuus dem siyaare ji ka kam sopp ndax saa bokk na jàkk mu duy sa ruu mu raxas sa ruu ba mu set duy sa xol ba mu fees dell mare ak pays suñu borom subhanahu wa kon na jar nga jaayante gépp ak jaayante ngir dem siyaare ji sa soppe boobu yow mi nga xam ne yaa sopp ka nga sopp ilayka tubtu min qawli wa min amali wa min jamii illasi qad kuntu axtaaru maa ngi tuub yow suñ boroom ci samay wax ak ci samay jëf rawatina lépp loo xam ne tànnoo ko sëriñ bi xam ngeen ne dañu wax ne góor yàlla yi ñoom lañuy tuub ci bakar muy bakar ci ñom bokkut ak ñun ñi li ñuy tuk ci bakar seenu bakar du ma yàlla de waye ay tolluwaay lay doon yo xamne fiñ tollu tay seen borom bu ëllëgee dañ koy rombu fañ ko njortoon ñu tuk waye du bakkaar yi nit ordinaire njaay yi def ba ni sëriñ bi aji manam aji makka googu bëgg ko bëggoon taxoon na mu aj ci xolam maanaam aj ci xolam bu nee ba xam ne jëmm ji am na gàllankoom mu aj ci xolom na suñu borom dama lay ñaan sama aj gii may aj ci sama xol nga nangu ko te nga fegal ma ay njuumte te nga fegal ma ay ñaawteef te nga matal ma sëkk te ñoŋal ma xaj jii bi xal bii taqabal wak fi nii xata am والتم حسيني وكملني بما زانا سون بروم حجي بقلبي سما اد نيغا خامني خولبي تي لاكو اد تقبل نانغوكو وكفيني خطا انت مويتول ما تاغا فغال ما نجومتي يوينال سما مبير تا نيوغال كو كون اد جي ماكا نيورون نكو بنديو با خامني امنا سي دانت مو اد سي خولم اد سي روحم جولي بزوري بزوري زورا لا يسابقها زور اللسين حن زور اللسين حن آياته في السفن نلق سمع الجماعت سمع الجماعت نم كدف مي أدو خمني بمرو أك أدو كن تقول يلا أدو جاي أدوون ك دابيا ك آه، غاليا سير أجي سمع الجين كفوخ xam ngeen ne góor yàlla yi am na aj gu ñuy def goo xam ne du jar déplacé am na si góor yàlla yi koo xam ne bi ko euh, fuqahaa yi di di ko di ko di ko yedd ci ñàkk a dem mu ne leen man da ngeen di nelaw wa anal wa wa wal baytu yatoofu nii yéen bëgg ñu nelaw man man man dafa ne bëgg ñu nelaw ana atooful bayt bëgg ñu nelaw man guddi man maa ngi wër kaaba gi wax loolu fuqahaa yi nga xam ne ñëw seen kattan eggul ci xam loolu mu ne leen man su may nelaw bëgg nga nelaw yéen maa ngi wër kaaba ga te loolu nee na bi may gone la bi may gone waaye bu ma nee ba mat sëkk doon góor yàlla kaaba gi mooy ñëw di ma wër si ma ne góor yàlla yi dañuy toog fu ñu toog kaaba gi di leen acc daañu ci egg ci sëriñ bi ni ko ni mu ko ni ko kaaba gi fekk seen wax ne wajjahtu wajhi ilayka al yawma murtadiyan kaw ni ladayka kam man xajjoo wa man saaro ba léegi xër gi mu xër mu ne suñ boroom maa ngi jubale sama xasanam ci yow di yaakaar ña aji woon màkka ziyaara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam leen may yépp nga may ma ko donte demuma ci zahir xam li mi fadlika yaa wahaabu yaa maliki kaw ni ladayka kam man bi ruuhi zawaaru nang ma may sa ngëneel yow may waa kon bi yow buur bi sama nekk naa mel ci ruu ni ña ziyaare ji woon sama ruu na gën a set ruu gaa yi ji woon xam ngeen ne alhajjul mabruur laysa lahu jaza ilal janna sallallahu alayhi wa nee na aj gu ñu nangu amul ak fay bu dul àjjana kon ku aji sa xol dina raxasu set wicc sa ruu set ñu defal la texe بجاه من حيثما السادة تقاربه سمس تقاربها بفسه أقمار maa ngi lay ñaan nga nang sama ñaan yooyu ma la ñaan ci barkib yonent bi nga xamne waxtu wu ko sang yi day melni ay bidiw yu ay ay wer yu ne ci pegg ak jant nga xamne gor yalla yi luñu leer leer luñu mag mag luñu lu ñu ci pegg yonent bi dañuy melni wer wu ne ci ak jant xam ngeen ne jant bi mom moy sarsa weer wi ak leer moo ko doole fuuf jant bi mooy ñoral mooy tàngal moo gën a kawe moo tiim lépp sallallahu alayhi wa sallam noonu la mel moo tiim ñëpp ci barkeem nag ma may li ma la ñaan lépp ci wàllu acc wax ne rasaxtani lxajja tayyan anta muqtadirun ma al jiwaari wa zawrin fii ka yàlla suñ borom nangul ko ñaanam yépp nag dafal ko nag mu mel ni ñu aji woon ba raw ci ruu ak yaram mu ne suñ borom rasaxtanil xajja may nga ma ak aj tayyan maanaam lii góor yàlla yi suñ borom dañuy taxañal yoon bi suñ borom da ko taxañal aji màkka ko ko dafal ko ko mu amee ko noo xam ne kenn amewu ko noonu donte jëmmam ja demu fa suñ borom egg ci may ko ne ko ku la bëggewut wala ku lay weddi sax bu ñëwee màkka bu ajee kaaba gi du ma ko nangul tawaafu kulli man alla ya ankara indal ilaahi wan nabi lam yuskara nee na egg naa ci suñu borom nangul ma sama aj ba noppi nag may ma ku dem màkka te bëggewoo ma mbaa nga weddi ma suñ borom du la nangu salaay salaam du la faare bi nga xamee ne egg na ci am ngërëmal boromam dëgg dëgg dëgg egg foo xam ne kenn yëggu fa yàlla bëgg ko ba mu gënal ko ñëpp rasulullah sallallahu alayhi wasallam bëgg ko ba mu gënal ko ñëpp anbiyaaw yeeg mursaluuna yi malaayikatul muqarrabuuna yi ku mënul awliyaa yu ñëpp sopp ko lépp sopp ko egg ci am ngërëm loo xam ne ngërëm mënatu ko weesu ki la suñ borom nag defal ko nag kaaba gi nag jóg sallallahu alayhi wasallam nekk ca biir ak sidna jibril lu ñëw fekk ko njaareen siyaare si ko moo tax ci mun najaat mu ne kataba allahu tabaraka wa taala anna baytullahi alxaram tarfa'uhu almalaikatu ila touba kon moom itti ju kawe moo ko may lépp ku bëggoon a ziyaara ji di ko jàmbat di ko ñaan di ko ñaan mujj léegi nee na suñ borom bind na ci lu dog ne kaaba ga malaayka yi yëkkati nañu ko te nag sallallahu alayhi wa sallam ma nga seen biir ak jibril ñu indil ma ko Tuubaa loolu lu màgg a màgg la kon li ma waxoon ci njëlbeen gën a yéene ak pas-pas ak itte yu kawe loolu mooy may lépp sëriñ bi yooyu dafa daje ci moom. wilaaye géeg loolu lépp am na lu mu am loo xam ne rawa na ko yàlla yëpp muy itte ju kawe yéene ju sell pas-pas bu dëgër. kon loolu lañ bëggoon a wax ci ziar. ñu berestiku ci ñaareelu xaaj bi mooy njàmbaaruk saxaaba yi ak mag ñi toppoon Cheikh Ahmadou Bamba ñenn ci ñoom sëriñ bi bi nga xamee ne waajuram bu góor bàyyi ko na fi ci ama assasine 1300 ci ati gàddaay gi booba la tàmbalee samp yoon wi booba ci la ko suñ borom jox ndigal ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko rabbi ashaabaka bil himma wala tu rabbihim bi darsi boo fekk na booba muy jàngale tàmbaleegul tarbiya tàmbaleegul tarxiya bi nga xamee ne suñ borom jox na ko ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fasdaq bi ma tumar ji ma suñ borom waxoon waxaat naa la ko wooteel waxal ne nañ làqutu ci yow yaay buntu bi yaay yaay borom jamono yaay qawsul wara yaay qutbul qaws bi nga xamne ya wara gindi jamono boba nak ci la wote mbolam yi mu ne len ala man sahibana di te kep ko xamne koo dañ ñoo da nga ñëwoon fi and ak man ngir jang rek man nga delu fa nga bayiko won gis ni ki tay képp koo xam ne nag li ma tax a jóg suñ borom digal ma ko moo la tax a muy tarbiya ak tarxiya man ngaa toog dara ji tas ñi ëpp dem ñi gën a néew ñen ñi demoon am taw feex dellu siwaat booba nag sëriñ bi tàmbalee samp yoon wi yoon wi néew doole lool di dang daay nekk ci diggante tàkk ak fay murid yi nga xam ne ñu àndoon ak moom sonn lool di jàmbat di yëg suñ Tuubaa nan ko Mbàkke ñun de lor yi métti na ci nun lor yi métti na ci nun Mbàkke Kajoor lor yu métti moo tax sëriñ bi toxu fa dem Mbàkke Bawol ba mu demee mbir ma gën a yéeme bi nga xamee ne Cheikh Ibrahima Fall ñëw na ci kër gi ba jaayante sëriñ bi euh, maam Cheikh tàmbali indi loo xam ne méthode boo xam ne gars yi xamuñu ko woon baa Tuubaa mbokkam yi dañ ko woon ne ko Mbàkke sa kii daal mënatuñ ko muñaale moom da ngay xool noo def ba teqali ko moom mbaanu teqali ko ak yow jëlee naa ci sëriñ Saliou Sow mu ne jëlee na ci sëriñ Saliou Niang mu jëlee ci Cheikh Ibra mu ne Cheikh Ibra Fall nee na sëñ Tuubaa woo na ma benn bis di ma nattu ne Ibra Fall ma ne ko Mbàkke mu ne ma dama bëggoon nga tàllal ma ñaanal la nga dellu fa nga bàyyi ko woon ndax kat mbokk yi nee nañ daal mënuñu loo xajoo dama lay ba nga dem mbaa man ñu ba ma man maam Cheikh euh, xam ngeen ne moom nit ku ku kaamil la maanaam ku kaamil la mu ne ko mbakke du yaay xutboog jamono mu ne ko waawoo mu du yow ya wara eggal ni ñi ci yàlla mu waaw mu du yow ya tok ci gàngu naa gi sallallahu alayhi wasallam togo mu waaw mu mbacke kon day mënumaa dem wax dëgg yàlla dem gi japp ndigul de gantal ulama yi nee nañ benn yoon bobu lañu mësa gis maam Cheikh alfal Fall gànt lu ci seigne touba ta loolu ngànt la mbacke bu dee ya xut bok jamono yaay wara marale nit ñi seen borom ya tok ci sallallahu alayhi wasallam togo mu na ko mbacke duma dem fenn fenn la dem sëriñ bi su ma gëm woo ko ne ko Ibra Fall mu ne ko maam mu ne ko sàllaaw de yow mënu ma laa ñàkk dama doon dama doon nattu rek dama doon nattu rek waaye mënu ma laa ñàkk mënu ma laa ñàkk waaye nag dama doon nattu xool ba xam booba nag ci la ko sëñ bi ñetti fan lañ ci teg sëñ bi woo Ibra Fall ak mag yi na leen takk leen bagage yi ñu tuxu te lañ dem Mbàkke Bawol bañ demee <clears throat> Cheikh Ibra Fall na leen mayuma kenn muy taxaw ci kanam sëñ Tuubaa di jiite julli Sëñ Tuubaa kenn du ko jiite julli du ma ci ay gaay du ma metti loolu ba jéggi dayoo murid yi it ñu leen di lor la saxaaba yi dajoon di leen beddi di leen saaga di leen gaaruwaale di leen yàqal ñuy di ko jàmbat Mbàkke ñun day sonn ne sëñ leen xanaa xamoon leen ne saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje ak lu nekk rey nañu leen génn leen seeni kër tuur seen deret ngir jëmm yàlla te taxut ñu yokkat taxut ñu dellu ginnaaw lañ bëggoon taxut benn yoon ñu yaafus ci ba suñ borom tàgg leen ci alxuraan